asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuy naa leen sama gars yi bàyyi nañ ci jàmb waaw tey recette délice mag waaw kon chaîne de cuisine gastronomique boobu nga xamante ni euh, waa Alphie Cuisine a koy xëccoo <laughs> waaw noonu laa ko bëggee de sama gars yi abonné moom lu mu lu mu lu lu mu gaaw rek ak lu mu ëpp rek xeeb naa ko waaw lii di wàcc nii nag poulet la bu ma mix bu ma bu ma mixé bu ma dëbb voilà blanc de poulet laa jël persil laaj euh, tuuti coriandre ak lan laa ci def euh, tuuti sauce soja def xorom def poobar def épice poulet daal di koy mixé voilà parce que texture bi euh, comme ay samoussa laay defar bëgguma donju poulet yi daal di ko ci daj comme poulet crème tey laa ciy def dama ko mixé ba mu nooy nepp waaw lu boobu xale yi di wax naan dëbb ba mu mokk waaw dama ko tey ba mu mokk <laughs> dama jàpp poulet bi dëpp ko ba mu mokk laa la wax waaw fas yéene ci def pomme de terre lii ñaari pomme de terre yu ma baxaloon la dagg ko donc moom tamit dafay ñëw rejoindre poulet bi ma écrasé ko si bu baax mu nekk benn farce bu neex boo xamante ni neex na ci risol euh, neex na ci samoussa neex na ci fataaya neex na ci crêpe voilà ay farce la yoo xamante ne seen utilité dafay bëri du recette bi rek nga ko mën defar su fekkee yàlla dafa def nga reprendre recette bi mën nga ko denc sa frigo boo namee ay samoussa namm ay takkos nam ay quesadillas lépp daf ciy dem waaw kay léegi damay yëngal bàyyi mu doore croustillant ma ubbi cinq euh, fromage yu yu triangle yi ñuy jaay waaw may leen yi bañ a di defal publicité bu ngeen bëggee publicité rek jege leen ma bind leen ma mail yéen ñi waa yi ma wane leen waaw cinq laay jël jàmb ko ci biir maa la wax lii poulet bu crème ngay am foofu waaw bii duma ci def fromage gruyère fromage crème bii laa ciy def résultat bi leneen la waaw Latifa Konaté tim Maroc tim croustillant Maroc war na mën war na mën a xam li may wax bëgg nañu fromage bi torop <laughs> léegi nañu yëngal waaw euh, persil ko waaw nañ ko persil walla ñu euh, persil chinois ko wala ñu ciboulette ko voilà mélanger euh, wat ko fa tuuti fromage bi gën a crémeux ñu fay gaz bi yàq denc réserver ko de côté bàyyi mu sedd voilà léegi amoon naa fi benn farce boo xamante ni Euh, farce viande hachée bala may ñëw ci loolu ñu dem ci délice mag waa sama gars yi waa Alphie Cuisine a ngi délice mag de commentaire yaa ngay jàmbaajoo foofu di jolli dañuy pare fii rek ci Alphie Cuisine dem délice mag bu fekkee nag yow mii di seetaan fekku la nga abone dangay bind délice mag ci sa YouTube chaîne de cuisine la nga bës si abone bi like fekk ñu ci commentaire bi maa la wax li ay ndogu yu am waa yu doy waar a fa nekk ba noppi délice mag daf leen may ay euh, pañe ndogu waaw ay plateau salé du moins ak ay mixeur mën ngeen ko fa am waaw yéen ñii di abonné wu Délice Mag dafay def tirage au sort waaw koy tànn ci quelque yoo xamante ni surtout nag ñi di commenté waaw may leen ay neexal yu am solo mi ngook bëgg naa nag nii ngeen jëlee Alphie Cuisine abonnement yi di yokk tarkalla ngeen dem ci Délice Mag rek jàppale sama sista boobu nga xamante ni yàgg nay dox ci gastronomie waaw kañ Oumy Diagne euh, mooy borom journal Délice Mag bi xam xam ngeen ko léegi nag chaîne de cuisine waaw kañ day def diffusion lundi mercredi ak di ay ndogu yu am maanaa moo fay wàcc léegi nag euh, pat bi may defar mu ngi woon ci vidéo Alphie Cuisine daaw moom lu bokk na ci recette yi ma njëkkoon def muy patu samoussa boo xam ne fait maison la am naa ñaari façon samoussa bi ma jënd ci commerce bi mais bii may defaral sama bopp parce que lim coursiyan man maa ko xam waaw li tax bu may defarati ay samoussa dootuma jënd pati commerce yi dama ñam bi te bu ngeen ko ñamee bàyyi ko donc xóom fa fataaya la nga étaler ko ba mu tàlli lem teg ci wis euh, diw ci tuuti tuuti dëwlin wis ci tuuti maïzena daal di ci tegle deuxième pâte bi ainsi de suite ainsi de suite ba yëpp tase nga daal di jël sa poêle nag doo ci def dëwlin doo ci def dara nga teg ko ci wàññi gaz bi bàyyi ko fa ba mu ba mu blanchir du soxlawul muy ñor waaw bul xool sama pâte bi parce que benn bi première couche bi dafa xaw a ñor ba mu ëpp mais dama ko dindi teg ko ci côté parce que yi ci biir ñorul waaw noonu laa koy defee léegi sama brunoise bii ngay seen nële légumes yi dama jël sama carotte jël sama courgette ak sama navet euh, baxal ko précuire ko baxal boo xam ne ñorul léegi man yi dama koy tëj ci pot yoo xamante ni su may euh, def sama ndogu rek bëgg légume sauté damay génnee rek def sama huile d'olive doole ci laaj sàppali am sama légume sauté parce que temps doyul waaw ni ma koy waxee léegi gis nga ñu ko defalee defee ci poêle bi ba pare nii lay mel waaw dafay dañ ko def précuisson day nooy euh, léegi nag ñu daal di def suñu farce poulet crème dugal ci biir lem lemu samoussa miin ngeen ko daal di koy réserver ne le de côté am na yoo xamante ne euh, jotoon naa fi am euh, galetu samoussa yi moom tamit dama ko jëloon ci commerce bi nañ ko ci dóor rek parce que ñaari farce laa am viande hachée bi defaroon naa ko fi gisoon ngeen vidéo yi dama si yokk fromage daal di ci def vermicelle chinois voilà mi ngoog léegi nag dañuy lem euh, farcir ko ba mu fees parce que man bëgguma ay samusa yu yaraax ma bëgg boo xamee boo xampee samusa xam ni am na farce am na ay samusa yoo xamante ni xott kase la dara nekkul ci biir waaw ñoom Sémou Sémou Diouf war nañu xam li may wax Maïmouna Fall Fatou Silla waaw madame Seck euh, sama suiveur yi nekk Atlanta waaw sama suiveur yi nekk Canada ñi nekk New York ñi nekk New Jersey waaw ak euh, fan gars yi ngi seetaan Angleterre gars yi ngi seetaane Argentine Alphie Cuisine euh, gars yi ngi seetaane euh, Pologne waaw Pologne gis naa fa ay commentaire ñu may bind sax seen làkk pol polonais boobu xaw ma xamatuma nu mu tuddu waa Allemagne waaw Allemagne dañuy seetaan euh, Alphie Cuisine waa team Sénégal Allemagne waa Espagne ñi ngi leen di hola di leen buenos dias wala buenos tardes ngeen fu mu leen fekkee waaw waa Portugal dañuy seetaan Alphie Cuisine waa Belgique euh, waa Arabie Saoudite waa Maroc waa Algérie euh, waa Sénégal yéen kenn du yéen waa Italie bu ma limee damay jum waaw damay jum ku ma fàtte rek bindal ma bindal ma bu subaa su ma ñëwee su ma dikkaatee ñëwaat ci léegi nag deuxième galetu samoussa bi moom laay jël def ci farce bi am viande hachée bi ak vermicelle chinois bi daal di tàmbalee nag saaf voilà samoussa dafa bokk ci ci ci ci ramadan euh, du waa dëkku maghreb bi rek ñoo ko bëgg ñun léegi dañ ko miinal suñu bopp ak ay suppu harira da foog ni sax ci ñun la jóge waa ak ñoom payla mi ngoog diversifié diversifié dañu am suñu ay spécialité sénégalaise mais tamit euh, on voyage à travers les papilles voilà gisee lu baax dañ koy jël adopté ko suñu bopp waaw ba tax na euh, ñun Sénégal dañuy def suñu ay supp yu baax waaw supp xarira di nuyu alxalif traiteur voilà sama sama sama càmmin alxalif traiteur nga xamante ne mi ngi ci supp yi waaw mi ngi ci supp yeel di def ay supp crevette supp xarira euh, supp de supp fruit de mer voilà di def ay xëlwa euh, yu baax yooyu sama sama sama frère di def ak madame voilà al alxalifa euh, trai traiteur maa la wax loolu léegi yëf pare na ci bi bii moom moom la ñuy wax comme ñaaw ngemb rafet bëri waaw aspect bee ñaaw rek yow dog-dog bi moom bu bu ñu koor boolewul woon yow xam nga fi ngay jëm waaw mais li mu croustillant ak li mu saf ak li mu neex man dama ba koy lekk dama dama ko lekk ba pare di di réfléchir est-ce que man maa ko defar xam naa léeg dina leen dal yii mais samosa bi neex na waaw papa papa poulet bi li mu saf <laughs> xam naa sama gaa yi dinañ ne Alphie lay sumbi waaye yàlla baax na saalit rek parce que di xaaraale heure bi jot waaw moment yi da ngay saalit xiif la xiif fay xiif def yëf yi tàndarma ji tege na kafe gi mi ngi tàng de l'autre côté dinañu ñëw ci jus yi jus yi dinañu ñëw ci idée de dressage yi euh, dinañu ñëw ci accompagnement yi ñëw ci recette copier yi sama gars yi Alphie Cuisine lay doon ñu àndoon ci ak Délices Mag bu leen fàttee Euh, abonné wu su ngeen pare dem Délices Mag les lundis les mercredis ak les vendredis fekk fa ay ndogu yu am solo mën a gagné ay plateau salé ak ay mixeur jaajëfal naa leen sama gars yi je vous souhaite un très bon ndogu on se donne rendez-vous demain incha pour beneen recette ci Alphie Cuisine kenn du yéen